voilà balaa ñu ñemee dàq ma dàq. ça va. circuler. circuler dégage. ginnaaw bi El Hadj Diouf demee foofa ca. koy invité ña nga xamante ni bii ñooy presse gambien ba ñaawlu nañ taxawaayu El Hadj Diouf di ngeen ci dégg ki nga xamante ni ki moom la yox Daabo mu ñëw ca daal di indi ay leeral ca taxawaayu El footballeur fañ ko yemloo yamu fa ca terrain ba lañ ko yemloo waaye dugg na ca palais ba loolu lépp Bukari Daabo dana ca ñëw indi ca ay leeral Farba Ngom moom la président Macky Sall yónni ca Italie pour ña ne ne wii nan la ko nar a doxalee moom Farba Ngom loolu lépp dana cee indi ay leeral ginnaaw bi nga xamante ni bi waa PDS yëkkati nañ kàddu daal di interpellé Moustapha Niass Moustapha Niass nee na ensemble ko neex la fay demee te loi yi dafa am loi yëpp pour nu muy tëddee loi bi mu indi nag mooy luwa bu bees pour ñu xool ki nga xam moom la yox Aliou Sow kan lañ ciy tànn ngir mu wuutu Ousmane Ngom loolu dana ci indi ay leeral Moustapha Cissé Lo tuxusi na fi nga xamante ne fi moom la yox Padoa dem na nag ngir fas yéenee daa wane fa mu xam ni fa la war a bindoo ba fa demee na mu demee léegi léegi lay doon revue de presse yaay jaamee suka tuta leer sénégalaises mes chers compatriotes ñi ngi sant yàlla borom bi di ñëw ak yéen ci déclaration bu am solo mu jëm ci ñi nga xam ni ñooy amal ay revue de presse mu mel ni am na ay dara ndaw soo xam ni yëkkati na ay kàddu jëmale ko ko c'est parce que dañu ne dafa revue de presse daal dee toroxal Pape Diouf yëkkati waali ndax loolu waxi ay dara la wala waxi presse bi la loolu moo jëra lijjanti parce que bu fekkente ni sénégalais yi dem nañ ba bu ay Aidara revue de presse ñu jàpp ni ay waxam la kon problème am na parce que kii revue de presse li mu war a wax mooy li nekk ci presse bi fekkee mi ngi wax li nekk ci presse bi yow mi attaqué waroo ko attaqué yaa ngi war a attaqué presse journal ba nga xam ni moo bind wax jooju bu fekkee ne nag kay revue de presse yamut ca journal ba di wax day yokk di ca laax lu ci bokkul bu boobaa rédaction ka nga xam ni fa liggéey am na problème te bu boobaa ña nga xamante ni bi ñoom lañuy wax kuréelu journaliste yi war na nañoo jóg kaas loolu bu fekkee ne revue de presse kat yi nga xam ne ñoo fi nekk muy ñoom am ak ki nga xam ne moom la wax Mouhamed Ndiaye dañuy ràcc bay barastiku kon war nañoo wax ak ñoom ñu yem ci li nga xamante ni bii moom la ñuy wax revue de presse parce que revue de presse nag da ngaa war a wax journal ba wax nga xam ne nit ki buy attaqué journal ba lay attaqué waaye def bu mel ni bi fi Lamine Samba defoon nga xam ni dafa bàyyi guy ga indil ñu daqaar ga ba daqaar ga saf ci ñun sap duñu ko fàtte kon mbokk yi yéen ñi nga xam ni yéen ay revue de presse yem leen ci li presse bi wax bu fekkee ne yéen a ngay ràcc di def ngeen ci yoon tey teguwut ci yoon ëllëg yow mi nga xam ne yaay déglu tamit balaa ngay wax naan diw wax na lii gëstul ndax journal ba mu tudd wax na loolu wala waxu ko bu fekkee ne journal bi defu ko nga porte plainte kay revue de presse yóbbu ko kaso wa illaa bu fekkee ne journal baa ko bind nga porte plainte journal boobu yóbbu leen ci yoon sénégalais sénégalaises mes chers compatriotes nañ leen bàyyi revue de presse di taaxuraan ba mel ni comédien comédien ñun ñoo ko moom ñun ñoo war a wax lu reetaan ñun ñoo mérito di loolu suñu liggéey la képp ku ne journaliste nga éthique déontologie yekkul ci sos yeggul ci yokk kon loolu comédien ko moom sénégalais sénégalaises mes chers compatriotes jërë ngeen jëf numéro de la semaine vieux Mbaye vieux Samba Euh, xam nga euh, mercredi bu jot rek dañuy daal di ànd ak yéen ngeen mataar ak ki nga xam ne rek moom moo di say batu dañoo bëgg nag ngeen am rek nu ñu def euh, xam nga bu bokkar darbo mais ka jóge fa nga xam ne rek moom moo di Gambia people sama àllar bi ba passé dalal na noonu na ko tey dañ koy dalalaat ci li nga xam ne rek moom moo di émission Nepad musical ñu dem <coughs> ah. sant naa leen yéen ñëpp ak kenn ku ci nekka ku mu dee nekka maa ngi ko dee gërëm di ko dee santa di nuyu mbokk yu nga xam ni ñooy mbokki Gambia yëpp Gambia people ñëpp ñu ngi leen dee nuyu di leen dee santa ku si nekka ci taxawaay bu nga xam ni moom la dee taxaw gërëm naa ko sant naa ko mm-hmm. eh journaliste gambien sportif yi mu ñëw si wàllu sport mm-hmm. because dañ dee invité footballeur international sénégalaise mhm. El Hadj Diouf El Hadj Diouf bi ñu ko dee woo dañu ko woo pour mu wax lu jëm si wàllu football mhm. ak nan lañ ko dee defee ak fan lañ dee dem ak yooyu mhm. si lañ dee wax ak moom mais bu moo ñëw Banjul e dafa ràcc barasiku duga si leneen loo xam ne Gambia amul kenn koo xam ni def si dee ànda parce que ñun woowuñu ko pour mu dee duga si palais ñu ko dee wax wax di football la ñu daal di ko dee foot footu buur nekk boo xam ni def day yam si biir Gambia ci biir terrain de football foofu la dee yam mm. mais nag El Hadj Diouf def dee ràcca balastiku duga si yoo xam ni yoonam nekkul foofu kenn laaju ko ko mm-hmm. dem si di wax si wàllu mbay bi di wax ba ne am na ay tool El Hadj Diouf am tool ci senegal kenn gisul fu mu bay amul loolu du dégg ba tax na Eh, may yëkkati waat suma kaddu Banjul ñu ngi ci suma ginnaaw mhm. ak képp koo xam ne da nga dee yëngu ci wàllu football am nga lu la mitti parce que El Hadj lu mu dee def baaxul du dee yoon because man ba tax na mu dem gisante ak ki nga xam ni Gambia yëpp dañu àndandoo ñu suur ko bugg ko pour mu génn sunu mhm. dëkk mu Yaya Jammeh mhm. di waxtaan ak moom defe na ni loolu bu ko defee tax na gamins yi dañ dee wax moom loolu du du am du am maan parce que ñun lu ñu wax lu leer la mm-hmm. sulagan bi ñëpp xam nañ lu lan la parce que fi ñu dee jaar ba wax sunu slogan bi leer na yaakaar naa ni wax naa ko fi keroog mm-hmm. ñëpp a dégg nañ ko mais dama koy tollanti oh. eh yaaya na gën ci dëkk bi yaa dafa sof ci dëkk bi dañu koy génn na dëkk bi du doon kenn ku dul moom kaay ñu gën ko yaa moo sof ci dëkk bi nañu leen yaa boo soog ci dëkk bi na ngeen ko mel si dëkk bi dëkk bi du kenn kenn ci dëkk bi bu dul dara ci dëkk bi yow yaa saf ci dëkk bi mais saa neexul ba neexul saa dégg kese nga. bu la ñemee àll moo ñemee naan. yow waay eh, sant naa yàlla. Ah. je suis vraiment content d'être ici sur ce plateau. Mm -hmm. Le président Macky il m'a nommé. ko kat. Le président Macky m'a nommé mm-hmm. un missionnaire. Il faut que je vais aller tous les pays de l'Europe. Partout foo xamante ni bii noo bi moo fa Macky Sall wax na pour ma dem fa pour wii bi gañewaat la mm-hmm. loolu nekk na lu nga xam ni kalaatu président Macky la kon kalaatu président Macky Sall lu baax dëgg la dem Italie mm-hmm. Beresia waxoon na noo waaw Napoli waxoon na noo eh, Rome waxoon na noo Milan AC Valencia. Valencia nañu non. Venezia. Venezia waxoon nañu non. Mm. Rimini. Rimini na Italie. <laughs> kay la yow dëkku njaago yi nga may dugalal ci nag. Mm-hmm. président Macky Sall kamal na ma. Mm-hmm. nee na ma Farba ma ne ko naa ma je donne une mission. il faut ko tu réussir la mission. Mm-hmm. pare naa en tant que pour faire convaincre ñi nga xam ni ñoo ne woon noo ñu ne wii ci kalaatu président Macky Sall kalaat bu rafet moo tax ma ne it. Amérique nee wii. Moustapha Niass alhamdulilah alhamdulilahi alamin mm-hmm. wax nga wax boo xam ni wax bu am solo la Moustapha mm-hmm. lii nga wax mm-hmm. fàttali ko dafa baax sama turandoo moom lañ doon wax ki nga xam ni moom la ñu wóolu ca Màkka muy al amin ak tafurlaa Moustapha ku ñu wóolu caar baatab arab lañ ko doon wax <laughs> parce que uh-huh. moom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Seydina Muhammad sang-sang yi géeru ñëpp ko bëggoon ñëpp ko wóoloon ndax njubam kooku mooy ku mm-hmm. ci moom juróom-ñaari jikko mooy borom barrière or bi bàyyi rokk ak fabintu jikko yooyu am na boo xam ne am naa ko muy jikkoog njub ku ma xam-xam ni ku jublaa ma tey dënguma lëg ndax sama turandoo wóor wax ji nag bari na ku ney wax yor seen làmmiñ yi ko Moustapha Niass nii Moustapha Niass naa Moustapha Niass nali te je suis quelqu'un de très juste man lu may àtte rek dëgg lay doon dëgg la Niass kii nga xam ni moom la ñuy tuddee Aliou Sow ak Mamadou lamin Kayta hmm. ñoom ñaar ñëpp PDS lañ nekkoon ngir nekk député Aliou Sow nga fa woon Mamadou Lamine Kayta nga fa woon bind nañ leen ci résiste assemblée nationale tey bi ñu demee ba Ousmane Ngom bàyyi mhm. que ce ci moom rek moom la naan Aliou Sow mhm. moo war a ñëw waa parti démocratique sénégalais lànk nañ mhm. nee nañ duñu nangu Aliou Sow di ñëw ndax dafa samp ab parti assemblée nationale lañ wax comme comme mee noonu wax ji bari mhm. ku ne di ŋang di ŋang dañ koy loterie loterie diggante Aliou Sow ak Mamadou Lamine Kayta mhm. ci télé laa nekk mënuma fee def lu umpe côté bii ah. mooy Mamadou Lamine Keita côté bii mooy Aliou Sow ci télé laa ne kelemeti kelemeti lañ kelemeti kelemeti amul bay ma fii la lengee de Aliou Sow 1 Mamadou Lamine Keita 0 waaye ni nga ko defee la nag daa mel ni nga ko defee. aywa ñu demaat ñëwal. kelemeti kelemeti lañ ci Aliou Sow. kelemeti kelemeti lañ ci Aliou Sow. jamaamu jamaamu lañ ci Aliou Sow. jamaanu jamaanu lañ ci Aliou Sow. jamkatu baataru. tan tan tan ci Aliou Sow. ñeel baa ngi bii mooy dar ñeel bi ma bëgg muy leer bëgguma lu lëndëm Aliou Sow féete nii aa bi koy taaj mhm. Kelemeti Kelemeti leng ci Aliou Sow Kelemeti Kelemeti leng ci Aliou Sow jamaamu jamaamu leng ci Aliou Sow jaaxal mooy jamkandu naka jamkandu faade lay mu takk ba ba tey ba tey ba tey ba ci Aliou Sow wala jë non <laughs> mi ngi padduwaa waa padduwaa yàlla yàlla may xolu muñ moom kay ma nga ca padduwaa moom Moussa Cissé Lo mi nga xam ne tuxu na padduwaa nag waaw nan la bindoo ba mu demee ca mairie ba waaw ci la ñëw la xew léegi léegi kon ñu bàyyi leen ak ki nga xam euh, di Moustapha Cissé ak waa Padois euh, donc di leen jox rendez-vous suba incha allah ci beneen numéro mu numéro Khour Dab euh, donc à demain incha allah gros bisous la population de Padois ça va alhamdulilah monsieur def waay tam def alhamdulilah barikalla na nekk ah, nii alhamdulilah def mbaa ngeen ci jàmm alhamdulilah merci eh, xam nga dañu jóge Bawal ah. tuxu si Ndakaaru ak njaboot gi yëpp kon ñëw nga. waaw ñëw naa ak njaboot waaw effectivement ñu ma ko doon wax. ñu ñëw pour bokk ci liste électorale yu Padoa je pense que le président de la république jox nañ leen ay instructions. voilà ñu nag njaboot ki ñëw nañ jege sama wasila Seydina Limamou voilà. voilà c'est bon kon donc euh, xaaral bi jublu ci liggéey bi quoi monsieur Lo et famille euh, voilà. et famille Lo. famille effectivement xaaral mu ñëw.

monsieur Lo merci monsieur Lo. merci. moo ci topp voilà effectivement maanaam madame Lo voilà madame Lo voilà madame Lo mu ngi si. voilà signal ma fii voilà. Dakar moo neex Dakar Dakar ku ci topp. aywa kii sama jarbaat. ah ok jeune homme signal fii voilà merci. ak kan voilà. kii sama. signal fii mon merci. voilà kii sama doom. ah voilà signé <laughs> si voilà merci. voilà. ok. kii sama doom mooy Cissé Lo Junior. ah Junior waay waay Junior kay signé fii Junior. signé fii Junior. voilà. fii ngay signé booy voilà. ok merci monsieur Lo. voilà. voilà donc alhamdulilah. voilà.

man damaa jom yaa vraiment Cissé Lo et sa famille là vraiment ñii xëjuñu fi parce que moom dafa bëri histoire man de waxuma leen de waaye doomam bi xaw ma Cissé Lo le même comportement que son père. may muy dox di bondé kanamam góoboo góob. ah man de xam naa damay dellu kaw la quoi. man waxuma soxna si rek waaye gorom bi mu andi nag. booy bi la junior bi booy bi moom comme moom ah. ko de. benn benn mais c'est le comportement que son père. ba de congé laay jël. xaw ma nag yow. njiw bu mais quand même man de xaw ma man xaw ma yow mais man moom xam naa ne moom ah les jours à venir moom man moom foog ma seet nu ma def ko. man de damay jël projet xaw ma nag yow. xam nga maa ngi ñëw léegi damaa gis. sama lépp man de dina dundee ak kaw la parce que ñii bu leen peexu Dakar di jàppee soit yeneen affaire la ak seen i buur yi. jom bi naa demoon ah vraiment. su ñu ne buy buy ñëwaat def ko kii balaa ah, yi waa Fane ba. man moom xam naa damay dellu kaw la moom. saa su ne arrosé yetu Dalatoor toq na ah mortal combat PDS de nee nañ moom la ñuy waajal xeex ba naaw dugub baat vocal parce que duñu nangu mukk ñu leen dee bugg Aliou duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg yërë yërë kaay bi leen tuddee nga xam ne moom ñuy wax Gira Wali Abdoulaye Wade nee na leen résistance na dégar waay a Abdoulaye Wade nee na leen na dégar kécca di kaddu quoi du ma leen jaaxal alaara mais da ngeen résister de waaw waaw yëral yëlekaay bi lay nga xamante ne bii moom la ñu naan hmm, laxas kii day raw ay dëmbooj yatara xaw ma ab APR la de. mi yor na luy tolloog cinq postes yoo xam ne fu nekk dafa dee fayu te ba tey mi ngi continuer kii nag kon bu ñuy wax ku ñu dee war a dàqa moom lañ dee war a dàqa yëlekaay bii nag moom la ñuy tuddee nga xam ne moom la ñu naan ah. ngembu naa waa wakaam ngembu nañ fas yéene jàmmaarloog fay parce que ne mbàkk fay li mu bëgg dafa suuf si seen suufas maam la di karuk waa wakaam kon nag mbàkk fay na bàyyi suuf si yàlla tamit sama noo ko songoog eh journaliste astafurlah ay lu ma si am ba tax avocat dañ ma dee porte plainte ca CPI ah, eh, en tout cas daal sama ngañ nekku si